la am na ko bëtam euh, yàqu lañu wax man ma wax loolu waaye oh benn est-ce que doo dem saa ba oh non booy man jàmbaar laa oh yàq nañ sa bët. masa masa masa sigil sigil sigil sigil oh. sigil oh yàq nañ sa bët. man jàmbaar laa booy. yàq nañ sa bët. oh. yàq nañ sa bët. c'est triste. à l'entendre oh yàq nañ sama bët. nee na jàmbaar la yàq nañ bëtam bët. wallaahi lii dafa métti dafa ñaaw. lii soo génnee li nekk sa xol wallaahi. dañ ko dóor grenade bi directement ci bët bi xam naa lim ci dal tey en fait problème bi mooy su la dalee

Değil değil. Değil. Ha? Ben daha yi fii kenn nettaliwu a gis seen lépp en direct gars dina am jamono moment yoo xam duñ mën a commentaire parce que le gaz lacrymogène dafa métti ça bloque un peu ta respiration comme ni ma leen ko waxee rek abadan incha allah di ngeen di nga lay suivre le live sa waay di yegg këram incha allah. <coughs> war ñibbi sa kër képp képp képp ñu lay dóor ay grenades lacrymogènes ay explosives comme ça gratuitement gratuitement.